wa ji yàqu na moom julli li muqtadi ñeel aji rawi bu mubtilin ci aji yàq xalal imaam ci ilimaan ba xayra farxin bare bànqaas mun jëlin bi aji feeñ nee na nag saa yoo xam ne jullit ilimaan ji yàqu na jullit maamoom ma itam day yàqu xam ne kon jullit maamoom mi ngi takku jullit ilimaan bu ilimaan baaxlee mu baaxle bu yàqulee mu yàqule ba mu des benn benn bànqaas benn bànqaas mooy benn àtte fiq boo xam ne moom lay bëgg a wax mooy man zakara ku fàttaliku alxadasa am toj aw xulida wala noteef ko bii ca toj ma in baadara dem gaawe ne alxurooje génn ga min xaa ci julli ga mu ne ilimaan bi jiitee bu dee jiite ba yàgg mu fàttaliku ne moom kat njàpp mi tojoon na wala wala toj ma di ko rëcc moom fi saas la ko dal su daal leen bàyyee fa saasay saasa xam ne gannaaw bu mu fàttalikoo toj mi baa gannaaw bu mu ko yëgee du faatu dara lu bokk ci julli ba daa daal di bàyyi fa saasa rek kon moom moo yàqule waaye ñoom ñooñee mu doon jiite kenn du ci yàqule bu la neexee kenn kenn sopp ni nag ñu bañ a kenn kenn wut kenn ci jiitu ñu àggale julli gi waaye buñ kenn mooy tam mu baax moom lay wax naa wona diba soppeef na taqdiimu mu tam min jiital aji roy yittim mu comme dana mottali bihim ak ñoom ko def bihim réew rek waaye moom bihim ci ñoom ñoo yem ngan nag bihimoo ni nga ko bëggee maanaam ndegam ilimaan am wax ne bu gaawee bàyyi julleem du yàqu kon sopp nañ balaa dem mu wutal kenn bu fekkee wutalut nag mu ne fayin abaahu ñoom bañ na ko in faradoo kon ñu kenn kennoo aw xaddamoo mbaa ñu jiital ku leen soow maanaam bu ilimaan jekkee jekki dem rek ñoom bu leen neexee kenn ku ne boru àggale sa jullit bopp bu leen neexee ñu jiital kenn ci seen biir ba daal taw mu daal di baax kitaabu zakaati lii mooy téereb asaka faridat farataaleef na ak asaka fii maa ci la nga xam ne wértasa mu def na ko bind nee na yi wax ci la islaam waral nga génn ci asaka xëy ninte mooy kee mooy wurus xaalis wa xabbin ak pepp wa tinaarin ak ay meññet wa naxamin ak ay juróom kër maanaam xaalis ak juri këram muy xar ak bëy ak nag ak gëléem ak xeetu mbay xeetu mbay mën naa nekk pepp ak meññet waaw yooyu ci la asaka war mu daal di ne xaqat yooyu ne moom asaka kulla xaamin ci mépp at yekk mul mun dana mat fil xay ni ci kee wala an xaami ak juri kër ya maanaam wur sa xaalis ak juri kër at mu ne nga ciy génne asaka bu ci sarte daje at mu ne xam soo génne ci at mi du cee bu déwénee itam nga génnewaat ko lu fee mi ngi mat rek moom wal xabu pepp ma nag yuraa mu def na ko sàkku bi ifraaki ca dijj ga pepp nag moom nee na bu ñoree xawm dijj gi wax mooy bu ñoree xawm rek ci la asakay ware xam ne gannaaw ba mu ñoree bu fekkee jot nga caa lekk baa nga jot caa jaay dara li nga jaay mbaa li nga lekk boo demee bay génne asaka da ngay seer lu tolloog asakaam nga génnewaale ko wa tamru tàndarma wa zabiib ak resen bëtti bi nekk na ci tooy ga tooy mooy neex tàndarma xeeti reseña meññet yi bu ñoree ba neexee ni ñu war a neexee rek waaw boobu mooy seen waxtu asakaal nga xam ne bu fekkee jamono jot nga caa lekk baa nga jot caa jaay baa nga jot caa maye soo tolloo di génne asaka da nga caa war a seetaan loolee la tolloog moom nga génnewaale ko wa fii di ci borom diw bu dee loo xam ne nga koy segal mi am ba na boo ko segalee rek a génne asaka wal li tax mu ne wal xab bu mooy day wane ne bu dee borom diw boo génnee asaka ji ca pepp ma te bañ koo génne ca diw bi te mu baax waaye loolu nag ñu ngi génne zaytoon zaytoon moom bu xasee am diw ci diw ga rek la asaka ji war a génn soo génnee ci pepp ma du baax bu génnee ci njëgg itam du baax dagam zaytoon bu am diw la wax yo moom asaka alxushru mooy fukkeel ba fi finaari ca meññet ya wal bi ak pepp ene bu dee xeeti mbay yi te nga xam ne yaa koy suuxatoo sa bopp dana ko wax léegi waaye nag bu fekkee suuxatoo asamaan si bopp mooy suuxat rek mbaa dex yi nga dend rek moo koy suuxat sooyoo ci dara ci suuxat ga sonnoo ca kon fukkeel ba lay doon fukkeel bi mooy boo ko defee fukki xaaj génne benn ba asaka fukkeel bi ne yaay seet moo koy génnee booy natt ay biniwaar booy natt ay bool booy natt ay kilo moom daal boo defee juróom-ñeent yaa ko moom benn ba ko fukkeel asakay alal yàlla nga joxe ko ñu ko yelloo aw ni suufoo wala genn wàllu fukkeel ba in ya jurra ndem dina diri alata saq yi jumtukaayu suuxat ga nee na bu fekkee yaa koy suuxat nag mbaa machine yi suuxat waaye da fay machine ba waaw su boobaa kon ngay génn genn wàllu fukkeel genn wàllu fukkeel mooy soo wëññee fukk fukk boobee nga xaaj ko téye benn ba joxe benn ba di ki waroon doon bëri ba nga joxe juróom fukki ba te juróom fukki ba des xam xamsatu awsaq juróomi wasq bu nisaabu la fii ci maa ci ñoom ñaar maanaam nee na nag xeetu mbay ak meññet moom ñoo bokk nisaab nisaab mooy tolluwaay bi nga xam ne soo ci aggut asaka waru la boo ci àggee asaka war la mu ne loolu mooy su matee juróomi wasq juróomi wasq na des na ko tolloole ak juróom benn bërigo waaye daa am ñu koy teqale ci bu ci gerte ak bu ci dugub kee ñu wax ca lee kee wax ca lee waaye daal bu fekkee da ngaa jàpp saaku benn saa da koo jàpp ñaari kilo daal moom mën ngaa jàpp ne kon boo ci toppee noonu benn wax bu nekkee juróom-benn fukki saa waaw saa bu ne ñaari kilo day mel ne kon benn wax bu bërigo la ñaar fukki kilo boo ko defee moom juróomi woon na kon mu joxal juróom-benn bërigo. xul waxal ne mi ataani mooy ñaari téeméer bi xamoon ci ay dërëm fii fiddatin ci xaalis maanaam daa wax ne waxal ne nisaab bu doon ci xaalisa mooy ñaari téeméer dërëm dafa jublu ñaar téeméer dërëm ci yoon. ñaata la ci yoon nag bu ko doon seet ci ay ngaraam xaalis bu sell bi ci ay ngaraam dina war a mat cinq cent quatre vingt nag boo ko seetee ci xaalisu CFA kon mi ngi war a tolloog cent soixante-six mille six cent bi ko mujjee seet waaye nag day soppiku rek di yéeg ko wàcc dañoo wax ni nag bu doon wurus moom dañ ko wax léegi quatre-vingt-cinq ngaraam moo cay tolloog ñaar fukki dinaar muy nisaa bi wurus ndegam wurus nag moom daanaka du yég ko daanu ñu far xaalis yëpp rek takk ko ci boo seetloo quatre-vingt-cinq grammes yi wurus lu mu toll ca xaalis booba bu dee suma xaalis bi nag mi ngi ci war a tolloog téeméeri junni ak ñaar kon téeméeri ak ñaar jamono yii mooy nisaa bi xaalisu CFA bile ishrona ñaar fukk diinaaran ci ay diinaar nisaabun nisaab la fi dahabi ci wurus dana mat 4 ngaraam ak kaaru ngaraam maanaam ñeenti ngaraam ak kaar moo doon benn dinaar waaw loolu nag boo ko defee ba muy ñaar fukki yoon da jox 85 ngaraam kon 85 ngaraam ci wurus mooy nisaa bi wurus soo ko amee war a génne asaka ak bu ko ëppee it noonu lu mu bari bari rek nii la génne asaka ci mooy waru bu xul kaaru fukkeel ba ba jaba war na fii ci ñoom ñaar bu dee xaalis ak bu dee wurus da ngay génn kaaru fukkeel kaaru fukkeel mooy danga koy def fukki xaaj benn xaaj bi nga defaat ko ñeenti xaaj waaw ñeenti xaaj yooyu nga joxe benn ba mu ne boo yoree ñaar téeméer dong boo ko defee xaaj xaaj bu ne day nekk ñaar fukk ñaar fukk yi boo ko defaatee ñeenti xaaj xaaj bu ne doon juróomi dërëm kon boo defee loolu moo tax ñu naa juróomi dërëm mooy asaka ñaar téeméer nga seete ci noonu rek lu tax ñu ne itam ñaar fukki dinaar genn wàllu dinaar mooy asakaam li ko waral mooy ñaar fukk tey boo ko ku nekk ñaar la yor ci loxoom ñaar nag xam nga boo ko doon séddale ñeent kon ñeent genn wàll lay doon waaw kon loolu ñett genn wàllu dinaar la li moo tax ñu naan genn wàllu dinaar moo di asaka ñaar fukki dinaar waaye daal jàppal ne su xaalis mu rek bari la danga koy divisé par dix génn boo ko divisé par dix mooy fukkeel fukkeel boo nañ nga divisé waat ko par quatre ko par quatre lu ci génn rek moo war a nekk sa asaka ndax mooy doon taaru fukkeel bi moom boo bëggee koy divisé par dix boo defee par lu génn mooy doon ab fukkeel waaw loolee nag di fukkeel ba boo ko diisiwaatee par kaat waaw par kaat yooyu la jox rek loola moo war a nekk sa asaka ndax mooy nekk rubuxul xushuri mooy nekk kaaru fukkeel mu ñëw nag ci jaaykat yi nañ wara a génne asaka wal xaradu marchandise ma buut tajri may boroomuk yaxantu wa day nu man ak barub ka nga xam ne adaara wëndeel na xiimatuha xaymaam kalaxaye ni mi ngi mel ne ki keega daa wax ne koo xam ne moom dafay def commerce bi ñuy wax idaara idaara mooy ni jaaykat yi ëpp jaaye maanaam daal li ñuy yor ci marsandiis dañ koy jaay ci prix normal nekkuñu di ci xaar njëggu seer seer maanaam aw kaañ déedéet li li muy jar rek lañ koy jaaye te itam bu jaree dañuy jëndaat meneen teg nga xam ne kon xaalis du sax ci seen loxo marchandise du sax ci seen loxo waaw ku mel noonu moom nee na bu am atam deexee mooy waxtoom tàmbale woon a jaay rek lay seet du ci seet atum lislaam mi niki tamxarit ba tamxarit déedéet day seet rek waxtoom tàmbale woon a jaay bu amee at rek mu xayma mboolem li mu yor ci marchandise te xaymaa ko njëg nga xam ne moom lay jar ca yooyu jamono ak ci béréb bu mu nekk itam ndax xam nga njëg day wuutee ci béréb ba ak jamono ya waaye kon béréb ba mu nekk ak jamono jam nekk rek lay seet na njëg ay demee mu xaymaa noonu mboolem marchandise bi mu yore seet itam lépp lu mu war ci xaalis liquide mooy xaalisu kese bu amee lu mu dénkaane fenn itam mu boole ko ca bu amee bor buñ ko amee boo xam ne wóor na ko ni moom moog lu mu téye yam ndax ka ko amee ko jubla te mu ngi koy indi kon lépp na ko boole su ko boolee nag ne nangam la mu daal di koy diviser par 10 ni ma waxoon léegi mu ko defee par 10 nag loolee génn mu diviser waat ko parkaat parkaat par 4 yooyee nag waaw benn xaaj bi ci ñeent yooyee muy par ak benn boobee moom lay joxe muy asakaam ak nu man di tollu rek ndax loolu mooy kaaru fukkeel waaw ah, loolu nag kon mooy li nga xam ne moom la jaay jaaykat di war a asakaale li ëpp ci ñoom bokk nga seetluwaal nag ne xiimatuha jim wax daa mel ne xiimatu huma moroon cosaan bu ko defee huma ji muy seen xayma ñoom ñaar mu dellu ci marchandise mi nga xam ne dañ ci yaxantu muy benn ak bor ba nga xam ne moom lañ ko ameel te ma ne woon moom wóor na ko ni mi ngi ñëw ndax ka ko amee am na ko te ko jublu mi ngi ñëw kon xiimatuhuma seen xayma ñoom ñaar mooy cosaan waaye nag dafa def rek xiimatuha mel ni sax buñ defoon xiimatuhoo mooy gën a jub ci zahir waaye nag noonu la ñëwee ci téere bi loolu mooy convention bu nekk mu diir juma juma ju ci kaarin toog boroomu dakkar ci zakka asakaam na xay li xam di samanin fa ñëbu njëg lu neexi ne ñeel nga bu njëg waaye mooy dafa jublu ci jamono ñoom njëgg aw daynin wala bor bi sartil xawli ci sartu at ma li asli ni ñeel yaari cosaan ya mu diiru mooy ki nga xam ne day wut marchandise mi denc ko ba ñu bari amatuñ ko mu jaayee ko njëg gu jafe-jafe maanaam am ca bénéfice bu réyee kooku nag moo xam moo gën a yomb ci wàllu asakaal asakaal lu mu yàgg-yàgg lam doon jaay dafa jar ba lekk wul sa xaalis ndax bu jaayoon ñu fayee ko marchandise mi ba tey kon asaka du ci war day aajowoon mu jaay ba noppi ñu fayee ko wul sa xaalis waaw kooku nag su ma bee njëgg te asaka war ca wala buñ ko ca amee lee bor itam ñu fay ko bor ba ba mu ngëpp ko waaw loolu mooy tax asaka war ko te su boobaa bu fekkee loolu sax na ca ay ati at nit ki ñett mbaa bu tax ñu wax ko ne ko at mu nekk da génnee génne asakaam moom bu asakaalee benn at rek mu waaw bu fekkee ne daal léegi moom day def ihtikaar te jaay na ba mu jar mu yëpp ko mu wuru sa xaalis moom njëgg bu ñu ca amee lee bor ba tey fay nañ ko bor ba mu nekk wuru sa xaalis day seet ba ba am boobaa lay mat na atam déet cosaanu bor ba ba cosaanu marchandise am na atam déet ndax boromul at asatul woor su fekkee am na at nag daa mu ëpp ko di yaari at mbaa yett waaye su day asaka lépp rek benn asaka mu ne mel at doom waaye bi topp na at yi toll at mu ne mu asagaal ko mu ñëw nag ci turi kër yi fii kulli xamsati jimaal yi nekk na ci bépp juróomi gëléem ca taxatun jasan min xanaa mën ci gàtt waaw nee na gëléem moom li fekk amoo juróom asaka la nit nga am ñetti gëléem ba ñeent du tax asaka la soo amee juróom na asaka la waaye du tax nga génne ko ci gëléem daa wax ne juróomi gëléem mooy nisaa bi gëléem ji gën a wàcc nga xam ne li fekk amoo juróomi gëléem moom asaka waru la soo amee juróomi gëléem asaka war na la waaye du tax nga joxe gëléem da ngay joxe benn gàtt gàtt boo xam day nekk jazaha jazaha nag mooy gàtt bu am at moom ngay joxe mu nekk asaka yi juróomi gëléem yi su ko defee nag nga def juróom bu ne juróomi gëléem yu ne benn gàtt ba kenn ngay am ñaar fukk ko defee ñaar fukki gëléem nekk ñeenti gàtt waaw boo demee nag ba am ñaar fukki gëléem ak juróom nag foofu ngay door a tàmbalee joxe gëléem soo amee ñaar fukki juróom nag foofu ngay tàmbalee joxe gëléem moom lay wax naa buntul maxaabi buntu maxaabi muqnihatul aji doylu loola fil xam si ci juróom wala xisrina ak wala xisrina soo amee yenn cinq ci ay gëléem foofu ngay joxe buntu maxaab buntu maxaab mooy gëléem bu jigéen goo xam ne am na at bu dugg ci atum ñaareelu ma ibnatul laboon ibnatul laboon takkoonu dana nekk fii si tët ci juróom-benn maxatala fi maanaam li tàmbalee vingt cinq ba trente cinq du tax nga sopp li nga daa joxe tey bintu ma xaadu boobu rek moom ngay joxe waaye nag bu doonee trente six foofu ngay bàyyee bintu ma xaadu tàmbalee joxe ibmatul laboon dana wax ko bintu ak laboon bu la neex ibmatul laboon ñooy moom mu gëlee bu jigéen goo xam am na ñaari at bu dugg ci moom ñetteel moom kooku moom ngay joxe boo amee 36 xiqatun xiqa kafat doy na sittan juróom-benn wa arbaxiina ak ñeent fukk nga tàmbalee 36 ba ci 45 doo soppi li nga daa joxe muy bintu laboon waaye nag 45 bu tegalee benn muy 46 foofu ngay tàmbalee joxe xiqa xiqa nag mooy gëléem bu jigéen goo xam ne am na ñetti at bu dugg ci moom ñeenteel jasanatun jasana wafat matale na ihda benn wa sittina ak juróom-benn fukk maanaam dalee ci 46 ba ba nga ñëw ci 60 doo soppi li nga daa joxe muy xiqa 60 nag bu tegalee benn muy 61 nag foofu ngay tàmbalee joxe jafaha jafaha mooy ko am ñeenti ci moom juróomeel xam ñoom ñëpp noonu lañu magante ku njëkk ki boo ko waxalee at ba dugg ci moom ñaareel da ngay tegalee noonu nag koo ca toppaat rek tegalee ko noonu ibnu bint la ba ma ca topp nga waxal ko ñaari at ba dugg ci moom ñetteel iqaama ca topp nga ne ñett ba dugg ci moom ñeenteel jafa xam ci mujj nga ne ñeent ba dugg ci moom juróomeel moom la ñuy tegaloo la boon yi ñaari bint la boon si tatam doy nañ juróom benn ba sappi naa juróom ñaar fukk maanaam nag soixante ya nga dem ci soixante quinze doo soppi waaye soixante quinze bu tegalee benn muy soixante seize waaw foofu ngay tàmbalee joxe ñaari bint la boon te bàyyi jafan bañ la waxoon fekk na xamoon nga benn buntu la boon ñaar nga ci joxe nag léegi wa xiqataani ñaari xiqa waaxidan matalal nañ benn wati si naa juróom-ñeen fukk maanaam susaan siis yi nga mujj wax ba nga dem ci 90 doo soppi ay 90 bu tegalee benn muy 91 foofu ngay bàyyee joxe ñaari buntu la boon tey joxe ñaari xiqa mhm. wa max salaasina bu àndeek fanweer salaasu ñett ay li ci nëbbu ay ay salaasu ñett ay li mu ci nëbbu ay li ci jublu mooy li ci nëbbu rek banaati laboonin ay bintu laboon aw xus wala nga jàpp xiqa tey ni ñaari xiqa biftiyaatin ci jalgati wala ci doylu lay doon bu fekkee 91 ci nga teg fanweer kon 121 lay doon su boobaa mënees naa joxe ñaari xiqa mënees naa joxe ñetti bintu laboon dañu tànn loo rek boo ci def baax na boo joxee ñetti bint la moom baax na boo joxee ñaari ñaq baax na waaw daa wax ne bu doonee cent vingt et un ci ay gëléem kon laajkatu askan bi mooy seet lu ko ñu neex tànn bu ko neexee jël ñaari xiqa bu ko neexee jël ñetti bint la boom am nañu wax ni sax biftiyaat jim daaneele ci jalgati daa am maanaam ay bi taxaddin shar'iyyin min as-sa'i maanaam laajkatu asaka bi moom la ñu may sañ-sañ ci boobaa lu ko ci neex tànn te borom jur gi moom du sañ a bañ te it wax nag mel ne ne moo gën a siiw. lépp talaafina ndem fanweer ya talat xaa topp na leen almi atu téeméer ba fii kulli xam si nekk na ci bépp juróom fukk amaalam ci ak mat xiqatun xiqa wa kulli abaami nekk na ci bépp ñeen fukk bintun bintu li la boon ñeen la boon. ah nee na bu gëli ñu xasee mat foofu la ñuy tàmbalee nag jox la takk-takk boo xam ni moom du soppiku ba loo bari bari ay gëléem xasee mat 130 dañ lay wax ne kon seetal juróom fukk bu ne nga génneel ko xiqa muy asakaam ñeent fukk bu ne nga génneel ko bint la bu muy asakaam nga xam ne bu fekkee lépp mën naa def ay juróom fukk kon say woo def lépp ay juróom fukk bu ne nga joxe ci xiqa su fekkee lépp mën naa def ay ñeent fukk ba tey baax na mën ngaa def lépp ay ñeent fukk bu ne nga joxe ci bint la bu lee di ay juróom fukk lee di ay ñeent fukki ba tey noonu di ki biloo nee boobu nga wax day jaxasoo day am benn cinquante ak ñaari quarante waaw nga xam nga téeméer boo ci génnee ñaari quarante muy quatre-vingts day des ñaar fukk nga boole ñaar fukk fanweer kon juróom fukk ba nga génn ci xiqa ak ñaari bint la boom ci ñaari ñeent fukk yooyu mu ne nag waxa kasaliki nii ma zaada lu dolliku rek amruhu mbiram yeexoonu dana jàppandi kon nee na boo ko toppee nii lu jur gi bari bari ak lu yokk yokk rek ñi nga ko génnee asaka mu daal yomb lool ñeen fukk bu ne lam ca wax bintu lagoon ak juróom fukk bu ne xiqa muy wéy rek xijlun xijlu tab yoxun bi aju topp ndayam xijlun asiyëg tab yoxun suy aju topp ndayam fi salaafina nekk na ci fanweer baqaran ci ay nag nag li fekk amoo ci fanweer asaka waru la boo amee fanweer nag war a génne aw aw na woo xam ne war na am ñaari at waaw dañoo wax na wu góor yi waaye boo joxee wu jigéen itam bu baax ñu jàpp ne wu góor yi gën a yomb rek waaye boo joxee wu jigéen itam kon jàppal ne fanweeri nag wenn nag woo xam ne am na ñaari moo ci war ñu góor yi jàpp ne boo wax joxee wu jigéen itam mu gën a baax machine na machine na def na ko bind fii arbaxi na ci ñeen fukki nag la dale 30 ba nga dem ci 39 amul soppiku ci benn nga daa joxe soo amee 40 nag foofu nga tàmbalee joxe musina na moom jigéen dong lañ cee nangu dañuy wax naa mooy mu am ñetti at waaw nga joxe xam am na te duñ nangu nga joxe wu góor waxee gasaa niki nii la martafaat li fee yëkkatiku nañ man nga ne martafaat li fee dolliku nañ maanaam fi nga amee 40 ba yaa ngi joxe musina musina képp ngay joxe ba ngay dem ci 59 59 mooy 60 yu manqué benn soo matalee 60 nag foofu ngay joxee ñaari tabi ñaari tabi xam nga boo amee juróom benn fukk muy 60 kon ne doon ñaari fanweer ko defee fanweer bi na nga joxe ca xijjul bi nga waxoon muy tabi foofu la foofu na ngay tàmbalee rek sa biir lu mu bari bari fanweer na yu ne nga joxe leen tabi ñeent fukk yu ne nga joxe leen musin na su lépp mën a nekk ay ñeent fukk baax na lépp mën a nekk ay fanweer baax na buñ jaxasoo lee di fanweer lee di ñeen fukk ba day nga def noonu rek ndax bu doonoon juróom-ñaar fukk kon day doon benn fanweer ak benn ñeen fukk waaw su boobaa kon ngay joxeel fanweer bi tabiwu joxeel ñeen fukk bi musin na su doonoon quatre-vingts mu juróom fukk kon day nekk ñaari musin na ndax xam nga ñaari ñeen fukk lay doon kon lan noonu lay toppee rek fukk boo yokk rek daal di seet na nga war a joxe asaka ci lay daal koy defe noonu ndax mën naa waxee gasa martafaat sumal xana mu topp gàtt ya chaatum benn gàtt la li arbahi na ñeen ñeen fukki gàtt bu ñu gàtt day yóbbaale xar bëy moom li fekk amoo ci ñeen fukk rek asaka waru la ki ba amoon fanweer juróom-ñeent du tax asaka war la faaw rek nga am ñeen fukk boo amee ñeen fukk nag benn gàtt moo lay war tuddam mu def na ko tàppe ma uxraa ànd ak beneen fii waahidin ci benn yet loobu dina topp ishrina ñaar fukk wa mi atan benn gàtt ba nga daa joxe da ci dool benn muy ñaar soo demee ba am 121 ak ak ay gàtt boo ci amee 121 foofu nga tàmbalee joxe ñaar ba ci 120 doo weesu benn ba nga daa joxe waaye 120 bu tegalee benn muy 121 nag foofu nga tàmbalee joxe ñaari gàtt ba ma tamaan yi na bu àndee juróom-ñett fukk salaasu ñett mujj ci ëpp aji doy la maanaam 121 boo ci doolee 80 day nekk bu doonee deux cent un foofu nga tàmbalee joxe ñetti gàtt ba bu doonoon deux cent sax du tax nga weesu sax du weesu ñaari gàtt yi waaye bu tegalee benn mi deux cent un nag foofu nga tàmbalee joxe ñetti gàtt waxub jàppal arbaxan ñeent min ni ina ci ay téeméer arbaxin yu di yent maanaam la dalee ci deux cent deux cent ba mu nga dem ci trois cent quatre-vingt-dix-neuf maanaam ñeent téeméer yi manqué benn ñeenti téeméer yi manqué benn ba foofu doo soppi ñetti nga daa joxe su ma tee ñeenti téeméeri mat nag foofu nga tàmbalee joxe ñeenti gàtt téeméer bu ne nga joxal ko gàtt foofu nga wéy na lu jur bari bari rek dañ ko wàññi par ay téeméer téeméer bu ne nga joxal ko benn gàtt muy asakaam moom la wax na chaatun benn gàtt li ku liñu etti ñel ne bépp téeméer in turfax ndeem def leen a yëkkati mooy ndeem def leen a dolli maanaam bu gàttee dolli koo bari rek la wax ne ngay nga toog par téeméer yi xam ne boo amoon junni gàtt fukki gàtt mooy doon asakaam noonu la wéy rek wa xawlul arbaaxi atum tono ya tono mooy bénéfice wa ak atum ngerte ngerte mooy lu juddoo jur gi kal usooli mu ngi mel ni cosaan ya waaw nee na nag bénéfice duñ seet ba xam am na atam déet cosaan yi nga xam ne moo ko jur moom la seet ni ki tey boo yoroon fukki diinaar yooyu wurus tàmbalee ko tam xarit ba jamono yi korite xam ne at mi ñetti weer ci des nga jënd ci marchandise te fas ci yéene yaxantu nga fas ci yéene commerce ñetti weer yooyee boo demee ba ñetti weer yi jeex mat at am ni kon fukki dinaar yi am na at léegi nga jaay marchandise bu ñaar fukki dinaar su boobaa xam nga fukki yee moom mooy cosaan ci yow fukki ci des bénéfice la waaye du tee ñaar fukki yëpp ndegam am na at rek bénéfice bi am na at foofu faaw nga war a génn genn wàllu dinaar jur gi noonu la boo yoroon ñaar fukki gàtt dong te ba moom xarit teroo ba jamono ji nu toll nag nga xam ne moom at mi lee mu ñu far jur ci diggante bi li fekk weeru tabaski yu jaam yi far fi jur bu mat ba far fi jur bu mat ñeent fukk tuuti asaka war la ngay jàpp ne ñaar fukki rek moomul at ci yow waaye yim jur moom boole ay lu néew néew la am waaye du tey ñu jàpp ne rek ndegam tey cosaan yi ni ndey am na ñaar lépp am naat su boobaa faaw nga war a génn benn gàtt attaari ak aju rot ja aju rot ja mooy la ca dolli ko te juddoowu ca laa xam maa waxuñu la nga xam ne nag yu zakka def na ko asakaal añ yaxoole ci bu atalee waaw nee na loo xam ne caa dolli nga xam na nga koo donn mu dolli ko ca mbaa nga jënd ko dolli ca mbaa ñu fayale ko bar nga dolli ko ca waaye moom juddoowul ca jur ga waaw kooku moom nee ñu seet bu fekkee lam fekk si matoom nisaab ni nga jëkk kon day day bokk mu asaka nga xam ne booy asakaal loolu far bu fekkee la lam tekk si mëtutoon nisaab te boo ci yokkee itam du mët nisaab kon sujaan wàcc na dara warul la te waaw comme noonu mu ko waxee rek la bu fekkoon ne tey danga am ñeen fukk xam nga ñeen fukk ma mat na nisaab ba noppi maanaam ñeen fukki gàtt laa bëgg a wax kon gannaaw ba boo jëndaatee mbaa may la mbaa nga donn mu daal di yokk ba mat ci loolu waaw kon booy asakaal bu fekkee ne ñeen fukki am na at rek te ngay far asakaale li ci yokk yëpp ko defee daal di joxe asaka ñaari gàtt waaw li yokk ci gannaaw ñeent fukk yi nga xam ne amagul at ci say loxo day fekk si rek li mu fekk si tam mat nisaab ñu bokk at moo leen di génneel asaka waaye su fekkoon ne dangaa yore woon ñaar fukki gàtt ci njëlbeenu tam xarit ci misaal rek ba at ba at mi xaaj am juróom benn weer kon xam nga ñaar fukki gàtt yi moom am na ci say loxo juróom-benn weer waaye nag matul nisaab gannaaw ba nag bu ñu wëlbatikoo may la mbaa nga donn mbaa nga jënd dolli ca mu daal di mat ñeen fukki gàtt kon bis ba mu matee ñeen fukki gàtt rek moom ngay jàpp date ko bu delsee ci déwén sa asaka door caa war waaye ñaar fukki gàtt ya nga xam ne amoon nañ say loxo juróom benni weer waaye matutoon nisaab doo tàmbalee ci ba nga leen amee yaa ngi tàmbalee ci bis bi nga amee yeneen ñaar fukk ci jënd mbaa dolli maanaam ci jënd mbaa may mbaa yu noonu ba mat ñeen fukk bu matee ñeen fukk rek waaw ci ngay door a tàmbalee tate sam at nag ci bis boobee mu matee ñeen fukk bu del see déwén sa asaka door laa war su fekkoon ne nag danga amoon ñaar fukk yi ma waxoon ba am juróom-benn weer gannaaw ba nga jënd mbaa ñu may nga dolli ca ba mat fanweer itam du tax dara war la ca doo jàppagul ba tey sa bisub asakaal kon nag ci takk-takk moom mooy lépp loo xam ne daa yokk ci jurug waaye juddoowu ca da nga ko jënd mbaa sarax mbaa may mbaa doon yi demee noonu takk-takk baa ngoog bu fekkee lam fu fekk si mat na nisaab kon da koy boole loola ñu bokk waxtu asakaal nga xam ne booy asakaal lam fa fekkoon te mat nisaab nga daal di koy asakaale moom itam bu fekkee la fa nekkoon matul nisaab waaye boo ci dollee lu boo ci dollee lu yees lii mu mat nisaab kon ba nga ci dollee ba mu mat nisaab na nga tàmbalee sam at ca bis booba bu dee see déwén sa asaka door laa war li fekk nga xam ne nag matagul nisaab ak lu ko jege jege rek boo tàmbalee wuñ jàpp sam at lool kon mooy takk-takk bi wala yu sakka deful asakaal waqas waqas mën a naxamee ci juri yi waqas mënal dox diggante juróomi gëléem benn gàtta coor xam nga dañ ne bu amee fukk ngay door a joxe ñaar da dox diggante juróom ak fukk nag muy ñeent yooyee loolu moo tudd waqas kon waqas mooy li nga xam ne moo yokk ci sa jur te taxul la nga daa joxe ci asaka dara yokku ca mel ni xam nga buñ ne boo amee ñeent fukki gàtt benn gàtt ngay joxe xam nga da nga dem ba am cent vingt door a tàmbalee joxe ñaari gàtt la dox diggante nag 40 ak 100 we ni mu baree gis nga ko te sa asaka yokkuwut la nga daa joxe rek ba agsee ci 100 121 nga door a joxe ñaari gàtt loolu moo tudd waqas wala boo nee gëléem boo amee juróomi gëléem joxe benn gàtt xam nga boo amoon juróom benn wala juróom ñaar ba juróom ñett ba juróom ñeent itam yeenti gëléem yi ci yokku du tax dara génn ci ci asaka ba loolu waqas la kon juri kër yi moom ñu ne lim bii joxe ci nangam dañuy demaat ba ci beneen lim ne la do dolli ci nag nangam ci la nga daal joxe diggante ba fay dox nag nga xam ne moom sa jur yokku na ko waaye sa asaka sa asaka yokkuwul ko loolu la tudde tuddee waqas loolu nag juri kër rek la waaye amul ci wuru sa xaalis dafa kan noonu maa lépp loo xam ne doon na nisaabi nekk na di yes nisaab wala xam ma te na mataleef ko ci wàllu yëpp. lépp lu yées nisaab rek xamal ne asaka waru ci bu nee mbay wala wurus mbaa xaalis mbaa diru kër asaka war na ca day fekk mën nisaab wax na nisaab na ci kenn ku ne jàppal ne kon ku amul lu toll noonu rek asaka waru la